sëriñ bi nee na jàkk ji tabaarakallaahu la bëgg a xamle nan la jàkk ji tëddee sëriñ Tuubaa ni Tuubaa Xaadimu Rasuul dafa yebalon mama ma mbake ne ko debal Tuubaa nga nekkal ma fa liggéey bi nga do liggey fi nak dañ koy def ci ay gaal di ko jox ay nit ñi di indi bu ñëwee nag sëñ Masamba nag def ca lam ca war a def nak yenaat ko ñooñu ñu delloo ko njaareem yenaat ko ñooñu ñu delloowaat ko jaarim xasaayit yu yu bees waaw sëriñ bi ne xasaayit yu mu taalif yu bees peq rek. ma Massamba Mbacke moo ci njëkk a teg bëtam. sëriñ bi defar kenn du ko defaraat. nee sëriñ bi daal lu mu defar moom ma Massamba kenn du ko defaraat. moom sëriñ Touba lu mu defar ba noppi. kenn du ko defaraat. waaye nag dana ko maas. waaye nag dana ko maas. suqi ko. sàdd ko.

ba mu nekkee njaareem nag ak moom. ne ba mu nekkee njaareem nag ak moom. dafa jege woon. dafa jege woon. lu noppi rek mu daal ko koy jox. mu def ci lam ca war a def nag. Mm. waaye bi mu demee noonu. demee noonu nag. néeg bi néeg bi mu nekkoon ak fii jàkk ji ñu nekk. sëriñ bi nee na ëppul fanweeri mètre. nee na bu ñu génnee dañuy seeg néeg bi ci kër sëñ du May. nee na moo doon taawu sëñ ma néeg boobu néegu xasaayid lañ néeg ba nee na néegu yi lañ ko tuddee. bu fa di liggéey nag ba nee bu fa masaal di liggéey nag ba waxtu jot nag. jàkka jii lay ñëw jullee si. nag lay ñëw jullee si fi nag. foofa lay doxee tànkam nag. ba dugg ci jàkka jii nag. ne fa ne fa tekk ñëpp. ñam fa fekk ñëpp. ànd ak moom julli. bu selmalee delluwaat ci liggéey ba nag loolu kat mooy sekkare jàkk ji sëñ Mahamadan nag ne yàlla dogal bi ñu nattee nag mbedd mi jaar ci seen diggante ñaari kër yi mooy kër sëñ Modou May ak kër sëñ Mahamadan xasida yi. nee na kay nag fa lay defaree xasida yi. waaye waaye fii lay jullee ci jàkka ji nag. loolu moo tax sëñ Mamadou amoon pas-pasu. nee na loolu moo taxoon sëñ Mamadou am pas-pasu. ñu defar ko. ba mu mel nii nag. di fi jullee nag. julli yi ñu war a def nag. ne dàqonte wu nag jàkko ji nga xam ne moo nekk ca penk mooy yee ca kanam. mooy bi nga xamee ne. sëriñ bi ñëw sëriñ Massamba ñëwagul Touba. nee na booba ñëwagul Touba. foofa la jàkk ji ne woon. ñu defaraat ko ba mu baax nag. ba moo fa nekk léegi ba ñu ñu di fa jullee. ne sëriñ bi ne loolu nag. sëñ sëriñ Mahamadan ne lim ci yéene woon. yàlla defal na ko ko. bi ko defar ba defar nee ndax taalib bi ko defar ba defar jàkka joojee. moo defar ba defar jàkka jee. ba defar jàkka jee. moo defar jàkka ji itam. muy doog a noppi nii nag. ñu fas oh, bi nee ñu fas yéene nag di ko dundal ni ñu ko daan dundalee nag. ñaari néegi yàlla la. ñaari néegi yàlla la. yu ñuy jaamoo yàlla. kenn moomu ko ku dul yàlla. yàlla rek ko moom Mbàkke. seriñ bi ne loolu mooy secret bi ne ci jàkka ji ku fi jullee ku ne daal yàlla na la nga xam ne Cheikh Massamba na ko ci ku fi jullee ku mu doon yàlla yàlla def ci yow li nga xam ne sëñ sàmba moom la yéene woon ci ku jullee fii nga am ko nag amin yàqin waaye Mbàkke am nañ ci yàqin am nañ ci wér-wér mu ne incha allah jàkka ji de taaru na Mbàkke rafet na ah ma dama damaa ñëw xol bi sama xol sedd guuy nag wa ne sëñ bi dal xol yëpp sedd nak waaw imam dal ne xol yëpp sedd nak mbacké nak ah jàkk ji tubaarkallaa bindu bu bess la fi fi moom mbacké xam nga ne señ bi wone ne mom yàlla la ko liggéeyal ndax li wa anal masajida lillaahi fala tadu ma llaahi ahad ah yàlla ne jàkk yi sëñ Masamba ne sëñ Maamadan jàkk ji kenn moomu ko jàkk yépp kenn moomu ko ku yàlla rek lañ siy woo ndax moo ko moom inna salaata maa ngi jàkkaarloo muy ak sama ginnaaw inna salaat ni ki julli kaana nekk na alal moomine ci ñi gëm yàlla ñëpp kitaaban dib di waxtu mawquutan bu ñu wutal waxtu xam nga waxtu waa ngi ni sëñ bi ñëw jiite ñu julli bu ñu toogoon ba tàkkusaan ñuy tisbaar dañuy julli dañu bi moom nangam jërëjëf Mbàkke yàlla na fi yàgg Mbàkke salaahi bi fadlillahi sin lawhi wal xalam you.